mais l'inclusion def inclusion financière jël boole ci ministère bi signé ak convention boo nous ne permettre ñu même institution de microfinance yi nga xam ne de microfinance de petite taille Nous tam ñu njëkk gis seen ci ci convention boo ne fixé objectif yu dañuy may euh, di di mais yemul ci également mu ñëw indil matériel parce que nous, xam la en tant que membre association matuluñ ko ministre bi ñew nañu li ñi def nañ ci convention bi jox naa leen ay matériel ngeen lii kii taxaway bi ñu war am moy ku fekk lay jappalé da nga ci gëna gorgol parce que ministre bi ñu wax ak mom ben ñaar moy que ne ñoo bok gis-gis gis-gis di moy que dañu wara a liggéey pour suñu développer suñu réew buñ koy liggéey aussi dañ koy jaaree ci institution de microfinance parce que parce que man lima gëm ak sama association moy que ne lu xew ci réew mi tay pour développement microfinance war na ci mën positionner wu

jëlee ko foofu jàll ba nga xam ne bi nga xam ne PME yi nga xam euh, ñi ngi accompagner dans le développement des infrastructures ñoom tam ñu gis seen bopp ci loolu.